am na lu bëri mi ngi lay romb guddi gi car yaraa la fa c'est que yéen ndeysaan da ngeen a baax des fois bëgg dugg ci yenn yi mais réalité bi mooy billaahi wallahi wa taala xoola lii luuxlu ci suuf moo gën a garaaw li ne ci kaw mais mais mais caatu yarax boobu sax boobu ñu ñu ci tuuti balaa ngaa dem mooy gars yi dañ ko bëggoon a sacrifier dañ ko bëgg a nax alaaj faram dama la koy waxaat c'est que makan mooy cuune makan mbeng dañoo wax téléphone ma ne ko makan yow bu fekkee ne sponsor bi li mu la dikk ak ni mu la joxee xaalis bi moo tax nga bëgg def làmb ji yaa ngi sonal sa bopp daq ko man maa ko wax makan maa mën a laa yónnee lépp maa ne ko makan dàqal journée bi mu ne ma noo su ma ko dàqee problème bi mooy sponsor bi ni mu ñuy joxee xaalis bi baaxul moom mooy lan par journée lañ lay jox su journée bi jàllee ñu dollil la ma ne ko waa léegi yéen à partir de loolu ngeen bëgg sanctionné booy bi ñaamu ndaw gaañu na ñaamu ndaw ci kër caacoo moomu noonu gaañu na du bëre dafa fracturé booy yarax bëriwut doo dàq journée bi dem wax sponsor bi bindal leen da leen eh, pour des cas majeurs ñaari lutteur gaañu nañ ci lii moo fi xew mu ne non moom foofu mu respecté contrat boobu ma ne ko yow kon doo professionnel ma ne ko léegi nag caatu yaraax kenn du ko saraxe ndax caatu yaraax contrat bi ngeen ko jox moom laa yor moom laa yor kon su ma waaj li ngay teg nii te danaa la wax affaire léegi nag boo ci bëggee guerre dañ ci guerre maa ngi ba mu jeex parce que man du question caatu yarax je m'en fous de caatu yarax caatu yarax moomu ma juruma jënduma mais cas bii nii waruñu koo perte Gris Bordeaux ma lay alerté waat yoon la nga génn cas bii bu ko mbër yi perte mooy mbër dootuñu ko respecté ci làmb alaaj fadam cas bii dafa war a leer nañ jaay doole bi ak nappaaje bi moo fi jeex makan il n'a

biir Gaston production la bokk ñaare ngi noonu Alioune Gueye nangu too wax lu tax parce que moom it am na part ca biir Gaston production am na part ci ki nga xam ne mooy caatu yaraax kon fi mu toogee baaxu kon pat lay demee Fallou Ndiaye mi ngi woote di wax booy bi génn wax mais Fallou njaay bi muy woote di wax Fallou njaay daf ma wax carrément Bakary mu naa ah, mu ne waxala gars yi xam nga fii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay makan woy juróom dem na te ñun xam nga rek kay ma wax la ñun rafet lañu mësa sékk ak ñoom kon man dama ci waslu ak waslu ak nak moko yobbe mo wax wax ju rafet wax ju rafet joju mu wax wax jooju moo génnaat tay ci kaw plateau bi mais dama lay wax ne la fallu amu ci ci woon benn mëbët bu ñaaw dafa bëggoon rek affaire yi sedd jeex biñu ñu téléphone dama kon fallu yow Fatma dias sama dooma yow amna no xamne xam ko waroo mu expliquer ma li tax mu wax te ci ngay xamé ne amna ño ñoo ñi ngi dox ci suuf di defar lu rafet waaye dafa am ñoo xam ne ñu ngi dox ci suuf di yàq ku ci mel ne côté Ali Ndiaye dafa woo wax woo wax boobu mi ngi xool poche ku ci mel ne Moustapha Gueye mi ngi texte mi ngi appel mi ngi wax eh gars yi arrêté leen seen appel ak seen texte yi. kilifa bu matee kilifa jaxasoo am ci dëkk da ngeen di toog woote point de presse ngeen teg ñoom ñaar ñëpp ngeen waxtaan ak ñoom carrément tollu fu ñu waxtaanee ci biir néeg booy caatu yaraax bëréwul su bëree làmb yàqu booy caatu yaraax bëréwul su bëree ma xam ne mbër nag jërëtut a kaasal ci kaw adduna ndax nag mbër yi ñooy acteur principal yi te nag yen laay waxaat yéen ñi fiy woote téléphone di attaqué booy ñi nekk fii chroniqueur ñu naan leen ay amoo leen ay lii amoo leen lii yéen seen bopp seen licence du professionnel yéen mbër yi di wax ni di kaas nii naan ay ñeñeñee Balla Gaye sax yow laay waxal yow yow Balla yow ndax boo génnee ay sénégalais rek ñoo lay reconnaître. léegi tafaati même chose ma ñëw rek. dama wax affaire yi leer. léegi léegi non pareeguma eh, mais man ku ma dagg rek laay bañ bàyyi ma daan foofu dama bëgg mbër yi xam ne dama bëgg mbër yëpp xam ne ñoom seen licence CNG ñoo ko reconnaître équipe nationale de foot wala équipe nationale des sports reconnaître wu ko à part CNG. bu ngeen génnoon tamit beneen licence ngeen di defaraat muy caatu yaraax ak Balla Gaye ak Gris Bordeaux képp kuy takk ngemb biir Sénégal. seen licence ñooñu ñoo ko reconnaître sauf gars yi demi international di bëri demi yi génn champion d'Afrique foo gars ay xam loolu kon nañ bàyyi journaliste yi ñu jéem a dammate ci ay question li, question la boo amee combat da ngay concentré wu ci combat nit ñi am nañ droit wu poser la question boo mënee répondre nga répondre boo mënta répondre nga teg ko fële ne waaw combat maa ngi jégalu bii mënuma cee répondre c'est secret affaire professionnelle mhm. léegi fexe nañu léegi bi am coow te booy bi fi mu wéeru baax na contrat bi booy bi yor jox koy avocat ma ichén wóor na ah mhm. man nag xamatuma ci dara mëntu ma cee wax ndax bu ma ci bëggee wax dañ ne ma woon sa yoon newu ci kenn laaj lu la moo tax maa ngi la ah. jekk nag daaw lu ma lay laaj ki nga xam ne nii moom moo bokkoon mbott bi génn wax première anamu ab loxan njaay disparaître ah, ah ndax dina waxaat na wax bu waxee ma ma jàkkaar bi ko moom moom am na leneen lu may te waxu xam nga nee la man bugguma di attaquer personnellement mais bu génnaatee wax dégg lu mu war a dégg ba pare ma teg preuve ci kaw table bi. Makan yow wax nañ yow wan naa la li visa bi yow ak Abdoulaye Khat yow ak Fons bi yow ak euh, Demba Ka lépp ngay poser question foo jëlee ku la information yi ba ma wan la leneen leneen lu jëm ci visa pareeguma booy bi bu ngeen ko billaay booy bi bu ngeen ko jëm a saraxe ma saraxe leen sénégalais yëpp xam seeni visage carrément sinon nekk leen ci jàmm bàyyi leen booy bi mu doxi soxlaam ngeen nekk seen soxla man ma noppi fi ma noppi nekk ci lu ma nekk te nag duma la naa alaaj Fadam am naa rendez-vous ak ministre bi ministre bi bind naa lettre ministre des sports bind naa lettre barke bind naa comme ni ma def ak tab tab seen rek fii laay toog bind lettre ñu waxtaan incha allah dina la ci woo dugal la ci dugal la ci conférence bi nga participer ci. waaw parce que li ñu soxla ci waa CNG mooy ñun dañoo bëgg carrément li ñu bëgg carrément moom mooy lan ñu dem audit leen benn ngi noonu ñaareel bi arbitre yi dootu ñu fi fayte arbitre dix mille francs arbitre buy arbitre journée bi dootuñu fayati arbitre dix mille francs alaaj Fadam arbitre ko fay dix mille francs li soo ko comprendre seeni arbitre di mett seeni xol di jug ñuy ti di jaawale di jaxase arbitre bu ñu fay dix mille francs da ngaa arbitre lu baax doo arbitre lu baax dix mille francs la ñuy fay arbitre damay wax saa du yoon ñuy fay arbitre dix mille francs te nee naa leen CNG tey boo xoolee neexut neexut a teg fenn parce que moom fu mu tëdd jaaxaan fa jeex na bu ñuy jël nañ jël waajooju noonu mooy booy bu sew bi rek tam naan kooku mën naa doon président CNG parce que kooku gis naa xam nga na temps yoo xam ne organisé woon na fi ay mooy match ah, match mbëri loolu foo nga doon patriote ci sa xel foo nga bëgg say gox foo nga bëgg say mbër pour organiser loolu coow jubut genre yooyu noonu ñoo mën a doon président au CNG genre boo xam ne ni ñoom dañoo neutre le gars il est véridique dama koy waxaat muy Malick Malick lu tudd ah mooy waa ji waa ji mën sifle rek wax leen chrétien chrétien yi mhm. ko fekk day mën a def symbole dëgg chrétien foo ko fekk day mën a boole. foo ko fekk chrétien foo ko fekk boo xam ne nii chrétien foo ko fekk en général dañuy maandu. dañuy mën a boole ay nit. dañuy mën a taxaw ci lu baax. Malick Ngom noonu la mel ni ku baax la. ku baax la nit ku baax la. nit ku te at te yëpp ku bëgg. mbër yëpp ku bëgg. dama koy waxaat nee la président wu CNG wallaahi wala jii bu ma waxee ministre bi danaa ko wax ne ko duñ ko fi jox beneen politicien soxlawuñ politicien kuy saf-saf nañ ko jox Malick Ngom mu jeex ba pare ñu toog am assise ñun ak lu làmb mbër yi ñëw toog bu beneen yoone te ñu koy voté par licence alaaj Fadam président CNG par licence lañ ko war a voté par licence bu boobaa làmb jub ko te nañ ko jox Malick man je vois que Malick mii mais war na koo mën a am parce que damay xool Babacar sama waay yow xam nga Babacar sama gaay mais mais Babacar xolo moo koy tooñ loo ko wax mun la waaw waaw googu noonu nag <laughs> dafa léegi nañ ko jox kee Malick waaye yor doom bàyyi ci kër gi di fi réwé des fois dimanche bi yéen ko moom jël leen booy teg di leen jox ay njarum soow <laughs> ay <laughs> Euh, kii du nit quoi. parce que gars yi daf leen demande amateur yi ma xool na amateur yi daf demande